doomu aadama li koy xaar ak a métti koy doomu aadama li koy xaar ak a jarabaay li koy njëkk a xaar mooy sukuraat gan goo xam ni dana la si te dara dalu la nga mënoon amoon yore woon rafetoon jekkoon taaru woon mu ne ciix ruux bi yóbbu moom lay wax ni ñépp taxaw jàkkaarloog moom te duñ ko gis waaye yow mi nga xam ne yow la ñuy jël ci sa ruux xam nga ne këll ni tey sa ruux lañ tey yóbbu nañu ruux bi nag jëmm jaa fi des waaye lépp luñ lay defal xam nga ko mm-hmm. yow koy defal leer na la ni xàmmee nga ñi la koy defal waa li ñu lay njëkk a def mooy sang la bi ma nekkee ci kaw suuf amul samay awra kenn du ko won tek ba ku sama bop man waye ndikiti yu bëss dina ñew mère mané jël loxom bi duggal ko ci sama yaram laal fu ko neex ci sama yaram té ba may dund mané général la capitaine la seyda la sama yaram bi dara du ko laal Allah rek ay yàlla waye bu joggé étape bop néna ñu tek la war la sang sang ñu sang la teg la ci buntu bi jullee la fuñ la jëmee ci bàmmeel nee na bu la suuf musaan laal yaa ngi koy fas faxas bu taxee sa lal nga ni dafa xaja bu dee ci sa ceeb nga ni duma ko lekk nga jege naa yu ko nga tëdd ci moom muy sa lal nga njege naa yu ko muy sa njegenaay nga sàngoo ko muy sa sàngukaay walla rekk ay yàlla keneen ku dul moom mënul nga sàngoo ko muy sa sàngukaay foofu ñu la sàngee nag malaayika yi ñëw nañu delloo si la sa ko waaye suufa lay gàttal bàmmeel moo la jëkk a gàttal mu naan ana baytu duut ana baytul xuruba ana baytul zulma tey nag ñëw nga ci man man maay kër gu wéet man maay kër gi nga xam ni maay këru sax bi man maay kër gu lëndëm lii laa la préparé loon yow ana loo ma préparé imagine leen ndax suuf mën naa ñëw di wax ak nit haza ma aadattu laka maza aadatta nii tey lii laa la préparé la yow lan nga ma préparé nag mu ne la nag sa mbokk yi jaauka wa dafanuuka walaw zallu maaka ma nafauka nee na sa mbokk yi indi nañ la nag tey rob nañ la yaa ngi ci man yaa ngi ci biir bàmmeel bu ñu desoon ak yow tam munuñu ci yow dara kon kan mooy mën kon képp ku yaakaar ni am na ku lay mënal sa biir daal na la képp ku yaakaar ni boo lëggee na len leen ko fi yeneen ci bi woo Fatima mu ñëw ne ko ñett yi mënuma la koo garanti na lay laaj ma koo garanti buñ lay jox sa téere mënuma koo garanti waaye booy jéggi siraat mënuma ko garanti comme moo ko wax doomam kon ñun fu ñu jëm moo ku waa demul sa bopp perte coow lee fi ne rek ñuy dox rek ngelaw li ñu dox waaye bés dina ñëw suuf nekk suñu lal nekk suñu njegenaay nekk suñu sàngookaay lu wayu yóbbuwul doo ko fa fekk loolu lay wax moo tax saar bi buñ koy jàng boo ko déggee dëgg il faut sa rongoñ wadd ci sa dënn ndax li muy wax a garaaw kalla isa balagati taraafi bu demee bay jege bu fekkente ni ñëw na ba jàkkaarloog yow yónni na malakul mawti mu tiim la yow dong yaa koy gis moo tax léegi la ngeen gis néew bi daal di xippi bët yi nag ni ko bukki di ko xoole kan lay xool malakul mawti rek lay gis te malaku ñëwee na noo xam ni metti na diis na tiis na na mu ne jàkk du xel waxii la man raa ni ngay wuti kuy mocc kenn du waaye moom nag wasanna annahul firaa moom nag war na ko ni wóor yàlla ni moom day dem par A ou B day dem kenn mënu ci dara ma ngay dem dem su demee lan mooy am li ma nettali nii mooy am. nañu yàlla fiir ci boppam nañu yàlla fiir ci boppam bu ñuy dajeeg moom yàlla bu ñu gàcceel yàlla bu ñu rus suñu biir bàmmeel yàlla na yaatu. yàlla na yaatu yàlla bu mu lëndëm yàlla na xat yàlla bu mu yàlla na yaatu yàlla bu mu xat yàlla na leer yàlla bu mu lëndëm bés bi suuf di nag di nag di nag ba sa toqantal di ngeen ñun yàlla buñ ci bokk